mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi ñu di ko tàmbaleeg euh, daje bi nga xam ne am na ni ki démb euh, fële ci maire ba te ki nga xam ne moo topp ci euh, préfet bu Koungheul di Pape Abdoulaye Ba daal doon koy woo ñi nga xam ne ñooy maire yi nekk ci yeneen communes yi nekk fii ci département bu Koungheul daje boobu nag mu ngi am gannaaw ba nga xamee ne kuréel googu ñu dippee délégation générale à la protection sociale solidarité ñoom daal doon nañ ko amal ak euh, lëkkaloo ci ministère bi nga xam ne ñooy développement communautaire ngir indi fi euh, waxtaanee benn projet bi tudd yokk koom-koom bi nga xam ne euh, fas yéene nañ ko samp ci commune yi ci village yi nekk ci commune ak quartier yi nga xam ne ñoo nekk fii ci commune bu Koungheul ci loolu nag li ñu xam ne mooy projet bi du dara lu dul fexe ba ñi nga xam ne ñoo bénéficiaire maanaam ñoo dem am ci bourse de sécurité familiale te nekk ci yenn conditions yi xaw a métti ñu daal di leen dimbale yokk seen koom-koom ba ñu mën a amal seen bopp wala ñu mën a continuer di yor seen bopp. ci loolu nag dëkk bu nekk wala commune bu nekk lu toll ci 87 euh, bénéficiaire lañ ci daal di tànn ci loolu nag euh, fexe nañ ba daf ko def tirage au sort boo xam ne euh, ville de commune boo dem. am na village yuñ ci tànn waaye aussi commune bu Koungheul am na quartier boo xam ne daal dinañ koy jël te ñi nga xam ne ñoo amoon ci bourse de sécurité familiale yi ñoom la ñuy daal di jagleel financement bu toll ci fanweeri junne. gannaaw loolu ñaar du ci euh, chauffeur yi nga xam ne ñoo nekk diggante commune bu euh, Gent Pathé Lour Escale ak Ida Mouride ñoom nag daal nañ dajee niki talaata doon defaraat yoon bi nga xam ne moo nekk diggante Niakhène ak euh, Koungheul. ñoom nag boo gisee ñu def ko lool parce que dañoo jàpp ne yoon boobu da leen di sonnal rool rawatina ñoom chauffeur si euh, bu nawet jotee kenn du fa mën a jaar te ñoom gis nañ ne comme ñoom loolooy seen liggéey te bokk ne ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy gën di jaar moo tax di euh, démb ki talaata ñoom chauffeur yi ak ñi nga xam ne ñoo yegg si oto yi di clients yi ñu dajee foofu daal di defaraat yoon bi ngir ñu gën a mun a am yoon boo xam ne ci leen di jaar ci loolu nag euh, daal dinañ euh, dégager benn voie boo xam ne euh, am na camion sax bu si jaar te amu ci benn problème te ñoom ñu ngi woo nguur kuréel ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi di autorité ñu daal di leen gerte waaye doole leen ba liggéey boobu nga xam ne tàmbali nañ ko ñu mën koo matal ba mat sëkk. ci loolu ñu àdd ci convocation bi nga xam ne Cheikh Oumar Diagne daal dañ nañ koy def ci dikk te plainte bi nga xam ne maître Djibril waar moo ko déposé gannaaw ba nga xamee ne bokkoon na si ñu accusé ne dañoo bokkoon ci ay lobby looloo tax maître Djibril War daal di koy. convoqué ci dégg moom na Cheikh Omar Diagne ba demee daal du weddi dara ci li nga xam ne daal dina koy def te moom sax yàkkamti nañu convoqué waat ko ndax jàpp na ne moom dafa nekk lanceur d'alerte boo xam ne lépp lu xew ci pénc mi te luy yàq askan bi la wala boog luy indil jafe-jafe askan bi euh, da cee war a addu ba nit ñi mën cee gis na euh, bopp ndax moom daal dina ñëwaat bu baax ci woot gi ñu ko woon noonu di wax ne moom amul lenn lu mu ci ragal ndax julli la te bu sukkandikoo ci alxuraan bi nga xam ne ci la gëm dañ koo aay muy tiit rawatina bu fekkee ne li muy wax dëgg la te loolu ci la jàpp ne ci la nekk. ñaar du si actualité internationale bi ak attaque jihadiste yi nga xam ne daal dinañ koy nemmeeku fële ca. Niger gannaaw ba nga xamee ne lu toll ci vingt une personnes daal nañ ñàkk seen bakkan ci loolu ñooñu nag ñu mën cee lim ñaari policiers yoo xam ne euh, dañ leen daal di attaqué ci région bu ñu naan Tillabéri nekk ci Niger jege fi nga xam ne mooy Burkina Faso. loolu nag ki ko xam ne mooy agence française de presse muy AFP euh, gannaaw ba nga xamee ne daal di nañ koy jël si source yoo xam ne ci wàll l'armée bi la daal di jóge loolu nag li ko waral mooy benn bus boo xam ne dafa compagnie nigérienne bi moo ko moomoon ak benn camion ñoom ñoo daal di tàkk ba jeex li ci mel ne bus bi ki ci newoon na ñoom ñëpp dañoo daal di ñàkk seen bakkan même bu fekkee ne am na ñoo xam ne ñu toll ci juróom ñoo xam ne am nañ blessé grave yoo xam ne daal di nañ leen yóbbu ci euh, centre de santé yu nekk euh, foofu ca Niger ngir ñu mën leen euh, toppatoo bañ mën a dellu ci seen activité. lii lañ leen indi loon ci seen euh, tënkum xabaar di ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba benn yoon jërë ngeen jëf